mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax di am mbégte teewaat fii ci ndimbalu suñu borom ak kattanam di leen jaajëfal bu baax di ziar ñëpp ci koor gi di baalu àq ñëpp tamit di sàkku ci ñëpp baalal ñu àq mais aussi teen di ñaanal réew mi yëpp suñu borom def fi jàmm mais aussi ñaanal ko kilifa diine kilifay aada yi ak nitu politique yi yëpp ñu ngi ñaan jàmm ci réew mi. waaye tamit euh, di ñaan xewal ak sutura ndaxte koor dafa métti di ñaanal ku mu ne ci ñun bu waxtu ndogu jotee mu am lu mu ndogo ba mën a joxe ndogu ñu ngi koy ñaan di ñaanal nag fi ñu ne nii di solution info TV yi ngeen ñu fi seetaan euh, suñu borom gën fi def jàmm ak sutura di nuyu El Hadji Modou Abdou Top Ablaye Sonibou Sanjogu maa jigéen Aïcha Assane Besere ak ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. di leen nuyu ñoom Kandji ak ñun àndal ñëpp ñu ngi leen di baalu ak liggéey bi macha allah tey nag euh, ñu ubbee koor gi ak actualité da ngay dégg ay nit ñu ni la koor gi buñ sañoon jàmm moo fi am buñ sañoon dal moo fi am koor gi ñuy dugg jàmm la ñëpp di ñaan waaye tamit li ñu war a ñaan ñi fare ci bopp réew mi du njiitu réew mi ak ñi mu àndal. mooy jàmm jooju seen loxo lañ ko teg ginnaaw yàlla suñu borom parce que li naan la sécurité des biens et des personnes ñi fari ci nguur gi ñoom ñoo ko yor comme ni ko président Macky waxee takk der yi jàmm réew mi nag ak cohésion nationale bi ñi fari ci donkaasi gi lan ko dénk maanaam unité nationale réew mi ànd doon benn ñi dugg ci koor di weeru yërmande di weeru njëggal ñi sàkku ci kilifa yi ñu bàyyi képp koo xam ne mi ngi ci kaso bi ak loo mën a def ci manifestation ak lu mën a am ñu bàyyi leen bu dee nii dañuy wax rek koor jàmm war a am parce que jàmm ñi koy wax mooy ñu toog seen kër seen njaboot wër leen ñi lekk di naan di am ndogu jamono ji ñuy wax jàmm lu toll ci quatre cent jeunes ñi ngi ci kaso bi ñu téye ak lu ñu mën a def ak lu leen mën a jiiñ mais ñi ngi ñu téye rek ci ñoo xam ne tey jii li leen yoon may rek lañ jàppoon ni moom la ñu bëgg doxal maanaam mooy saña ñaxtu ñaxtu gunge seen leader di Ousmane Sonko woon na leen dañ koy atte bala cay xew-xew ca jamono jooju ñu naan jàmm ci réew mi ñu ne weeru njëggal la dañ doon def bu koor doon jug wala boog ci weer woo xam ne dana war a woor wala ñu toll ci korité wala tabaski maanaam ci fête ñu ne dañuy def grace présidentielle tey jii grace bi bu dee ni am na fi mu gënoon a jekk mooy les détenus politiques ñu bàyyi ñépp waat réew mi yépp ci waxtaan ah na réew mi kat ñun ñoo ko bokk buñ bëggee jàmm ci réew mi mënuñu jël waa passé fii di leen rëbb di dugal ci kaso bi ku ne ñu jiñ la lu ne ñii ñu naan leen appel à l'insurrection atteinte à la sûreté de l'État ñii ñu leen di jiiñ nan leen diffusion de fausses nouvelle yooyu mooy yi xew yoo xam ne moom la ñi fare ci donkaasi gi di jiiñ ñi fare ci opposition waaye tam képp kun bëgg a tëj ci kaso bokk na ci li lay jiiñ lool ci la yaa ko def wala defoo ko waaye dem ci kanamu takk der yi wala sûreté urbaine wala fu mu mënti doon wala dig fu mu mënti doon boo fa eggee amatoo sensu ñibbi sa kër kon tey ji jàmm ji ci réew mi ñi koy woote ak di ko wax yëpp mooy dañ kaa tal mais ka ca kaso ba wala njabootam nekku fa talu ko Ousmane sonk mi njabootam nekk ci kaso talul jàmm jooju kon waxtaan wax dëgg ca nanu koor ci jàmm koor gi yërmande mais yërmande dafa war a jiitu ci njiitu réew mi président Macky Sall njëggal dafa a jiitu ci président Macky Sall ndaxte moom moo joboote te moom moo sañ a moom moo sañ a xam nga dogal boobu loolu kenn mënu ko xaar ci Ousmane Sonko ay njëggal ak ay baale. parce que moom mënul loolu kon nan waxante dëgg ñiy wax naan koor gi jàmm daa war a am loolu dañ ko waroon a wax ci suufu Sénégal bi jàpp àtteeg Ousmane Sonko la 30 bu doon ni ñoom war man nañu koor jàpp ni koor weeru jàmm la weeru salaam la weer la woo xam ne fitna waru ci am lan la ñuy patam patami lan la gaawantu ba na procès bi diggante Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko dafa war am le 30 ak le 30 ak lu ci mën a xew yépp ñoom nag jàpp nañ ni pour ko organiser le 30 nit ñi dañuy xiif nit ñi dañuy mar nit ñi dañuy sonn kenn du tala gunge Ousmane Sonko ñi ngi nax seen bopp ndaxte koor ca la nit ki ëpp jot te bari na ci combat yi am ci àddina ban koy xare ak di ko xeex ci koor la kon tey jii jëloon procès bi pousse ko ba après koor gi pour man buñ bu gën a wormaal koor jox gëddu koor loolu la ñuy def waaye jamono ji naan nan woote jàmm ci kor gi jamono ji naan nañ ci dugg jàmm jamono jooju quatre cent jeunes ñu ngi ci kaso bi képp koo xam ne nag da ngaa jàpp ne loolu du dara daf fekk ni bokkoo ci wala sa doom bokku ci wala képp koo xam ne da nga jàpp ne loolu du dara le trente de laawrul atte ni Ousmane Sonko kon loolu mu doonoon lu ñuy laytaaye wax ji léegi nag li ma jaaxal ci réew mi tey jii mooy poser question bi mooy mbaadu mafia bi ku ci bokkul xiir bi dalay dal maanaam mafia wu président Macky Sall ku ci bokkul xiir bi dalay dal lu tax ñuy wax loolu mooy xiiruk président Macky Sall bi caw gi mu koy caw di jàpp nit ñi di yóbbu médecins yi muccatuñ ci mbiri docteur Babacar Niang dinañ ci dikkaat mais ñi di jàngalekat yi ak ñiy jàng muccuñu ci waaye ten waa impôt et domaine Waly Diouf Bodian min ne dafa bokk Pastef njegeñaale Ousmane sonk la mooy directeur adjoint de moom tamit jàpp nañ ko ma ni kon réew mi tey kenn muccatul ndaxte boo demee ca Touba Mbacke am na sëriñ soo xam ne jàpp nañ leen ñu mel ne ñoom sëriñ Assane Mbacke boo duggee ci biir commerçant yi am na ci ñoo xam ne tey jii teg nañ leen loxo nga ñëw ci journaliste yi ku ci mel ne Pape Ndiaye mu ngi ci kaso bi loolu mooy mafia bi ku ci bokkul xir bi dalay dal. jamono jooju ñu ne kat ñi ngi jàpp ay ndawi Pastef ndax dañ doon manifester jàpp maire Kër Massar Bilal jaata jàpp keneen ak keneen ba ci ay magi Pastef ay màgget yoo xam ne tey jii mënalul seen bopp dara nga jël leen dugal ci kaso lu toll ci quatre cent jeunes nga dugal ci kaso bi parce que danoo àndul ak yow waaye tamit danoo gis ni ni ngay doxalee réew mi yow ak sa justice ak say takk der ak say militant du yoon dem na ci ba waa yeewi askan wi mënatuñu def conference de presse buñ ko waree def da leen koy tere kon tey jii képp ku faree ci opposition war nga fare ci Ousmane ko wala nga jege ko di journaliste di médecin di jàngalekat di elaw di commerçant di sëriñ muccatoo ci réew di Sénégal ba ci activiste loolu mooy li jaaxal nit ñi mooy réew mi def nañ ko ab clan clan wu Macky Sall ak ñi mu àndal ku ci bokkul mun na am doo mucc ñu dégg le président de la république mën a force reste à la maanaam force reste à mooy ñi yor kaaraangeeg mim réew di Sénégal nanu fexe ba la sécurité des bien et des personnes nanu ko sàmm duñu nangu kenn salfaañe réew mi man mii bëgguma ko salfaañe réew mi ndaxte bu salfaañe réew mi man fu ma dem gëm naa ne Ousmane ko bëggul ko salfaañe réew mi mais tey ji président Macky Sall li mu waroon a wax ci loolu ak takku deru karange gi bu dee ni dañuy def seen liggéey mais bu nu salfaañee ak ak yelleefu Ousmane Sonko mais bu nu salfaañee ak ak yelleefu waa Pastef parce que nag parti boo xam ne tey jii de opération de démantèlement maanaam bu doon ni ab garab ñu ngi koy witti di ko witti di ko witti bu ñu deful nànk Pastef reen ya ci dee la jëm mooy stratégie bi nguur gi teg dama leen koy wax. mooy danoon activiste yi wax ci réseaux sociaux yi ñu bari ñu jàpp leen ñoom Ousmane Diagne ñu dem ci mouvement kacc kacci jàppoon na ñooñu ñooy dajaleel xaalis Ousmane Sonko mais ñooñu dugg nañu kaso génn ñooñu dugg nañu kaso génn teewul Pastef dajale na trois cent ak lu teg ci million ñu dem ci ñii doon dajale xaalis pour Pastef ñoom Hannibal di ko dajaleel ñeneen di Kopar Express ñu jël leen tey xam nga loolu lu ci jublu mooy robinet yu Pastef nañ ko tëj robinet wu Pastef yi nañ ko tëj maanaam Pastef waratul am xaalis benn ñoom Ami Dia ñu téye leen parce que dañoo jàppoon ni ñooñu dañ doon séddale xaalis pour jàppale ay nit yoo xam ne dañoo bëgg a yee fitna. kon Pastef waratul am xaalis képp kiy yëkkati xaalis di ko def ci Pastef te jamono jooj ñu naan Kopar Express warul dajale xaalis bu Pastef mais Pastef bi muy laaj xaalis am na ñu jël seen xaalis jaarale ko ci ay opérateur yu ci mel ne ay Wave wala Orange Money est-ce que ñooñu dal leen woon ni yéen tamit lan moo leen dugal ci dajale xaalis bi kon li ñu jublu ci Kopar Express kon mooy tëj robinet waa Pastef bin paree ci robinet Koparo euh, Express ñu ne nanu tëj làmmiñu Pastef mooy mënuñu tëj làmmiñu Ousmane Sonko mais nan fexe ba chargé communication bi di El Hadj Malick Ndiaye xam ne mooy coordonner la communication de Pastef nanu tëj làmmiñam balaa loolu ñu ne Pape Ndiaye ci wàllu yoon moom mooy def ay chronique te mooy leeral lu bari ci dossiers yi nan tëj làmmiñam te njëkk woon nañ ko ci Pape Alé ñooñ di def investigation kon Pastef léegi ñiy joxe xaalis bi léegi ne leen li damm nañ seen loxo ni yéen waratoo leen joxe xaalis jugee nañ ci loolu ñu ne ñiy wax pour Pastef nañu tëj seen làmmiñ ñin mënul tëj kaso na leen i saaga yàq seen i crédibilité waaye te nanu fexe ba lottal leen ñi ci mel ne Walfadjri napp leen ba lan doon wax duñ ko waxati pourtant Walfadjri waxul pour Pastef mais day wax pour la liberté d'expression mais di wax pour la démocratie sénégalaise mais ñoom danoo jàpp ni képp kuy wax lu wuteek loo xam ne moom la nguuru ak Sall di wax bokkoo ci ñoom mafia bi ku ci bokkul xër bi dalay dal beneen bi ci topp ñu ne léegi kaaraangeeg waa Pastef jàppoon nañ fi garde corps yi ci jamonoy nemmeeku tur ñu ne képp koo xam ne yaa yor kaaraangeeg kii di son ko benn doo waratoo sol kagul mais aussi dañ lay désarmer waratoo sañatoo yor ngànnaay loolu nag bu ñu ko defee mooy wane ni Ousmane Sonko amatul kiiraay ñàkk kiiraay googu nag moo tax ñu ne ñii na nañ ko ñii pomp nañ ko loolu dara wóoruñu ci ndaxte loolu ay médecins ñoo koy wax léegi ñu ne ginnaaw ba ñu tegee fitna Ousmane Sonko léegi ña ko war a faj di docteurs yi na leen xoxatal ba Ousmane Sonko mun na am bu feebaretee képp ku fu mu dem ñu ni ko yow de du la faj ndaxte li daloon Babacar Niang la ñuy bañ mu dal la loolu tëj nañ ko beneen bi ci topp ñu ne léegi manifestation boo gis ay rassemblement di am ay leaders yu ci mel ne ay Bilal jaata ak ñeneen ak ñeneen ca diwaanu cees ñooñu la ñuy jël wala ca tuubaa fexe ba ñoom ñooñu duñu dajaleeti ay nit wala boog benn père Ousmane Kébé ca Kër masaar ñoo ñu xam ne ñooy leaders yi ñu fexe ba damm seeni tànk ba xam ne léegi bu manifestation la le ñoo ñu ku ne day tal bopp mais du leen tal maanaam munoo jàpp ñëpp mais dangay ngay jàpp les leaders et les ba xam ne léegi li ñu waree dajale mbooloo dajale boobu du amati parce que dajale mbooloo buñ koy wax mooy am na kuy génnee xaalis mais aussi am na kuy coordonné mbir mi ñooñu ñëpp ñu fexe ba ñu am leen teg yoon ñii ñu tëj leen ci kaso bi mais ñii ñu nëbb leen jant mais ñii ñu jiiñ leen. diffusion de fausses nouvelles ñu ñu def leen sous contrôle judiciaire bu boobaa nag loolu Ousmane Sonko léegi day wér day isolé wu parce que bu amatul ku ko waxal amatul ku ko jox xaalis amatul ku ko xeexal mais lan moo des ci Ousmane Sonko maanaam désarmé nañ ko futti nañ ko ba mu set mais adversaire yi mu jàkkaar lool ñu ngi leen di ngemb mooy takku deru karange gi ñoom. li jëm ci sécurité des bien et des personnes ko war a sàmm mais li ñuy yéem te jaaxal ñu bu doon rek policiers yi ak gendarme yi man awma problème ci ñu recevoir ay ordre def seen liggéey mais daa am ñu ne dafa am ay nervis yoo xam ne ñi ngi si seen biir te nag ñu leen di wane ci ay vidéo di leen wane ci ay photo est-ce que photo yooyu lu wóor la est-ce que vidéo lu wóor la loolu leeruñu waaye bu dee dëkk li ñu waroon a njëkkee damay dellusiwaat ci docteur Babacar ñu ne non assistance à une personne en danger maanaam ab nitu Bamba bu ñu dóor la ñu indi ko ci clinique am clinique am ne du ko jël loolu lañ ko jiñ te man gawuma ni loolu am na parce que docteur Babacar Niang humanisme am ñëpp xam nañ ko niteem ñëpp xam nañ ko ci réew di Sénégal yàgg nañ kaa mere nag waaye gën nañ kaa mere ci ba clinique am dalalee Ousmane Sonko léegi nag comme day oyof parce que nag ab médecin nga ni ko secret médical. génnee ko waaye tamit bulletin de santé wu jàmbur génne ko mu doon ab agent assermenté mais aussi jàng métier xam li ko déontologie métier am sant ak éthique bi mu war a am nga koy sant loolu mi ngi mel ne ngay sant ak taskatu xabaar naan ko génnal sa source xam nga ni loolu docteur Babacar Niang du ko def loolu nit sax xalaatu ko ci àddina génne ay kayitu Ousmane Sonko wala leneen waaye yàgg nañ kaa mere lii occasion la pour ñu napp ko téye ko. léegi nitu Bamba Fall boobu ñu wax ni dafa faatu dañu kaa sàggane bañ jël plainte dóor ci kaw kii di docteur Babacar Niang mais ñu waxante dëgg Sénégal moo neex nee na dañ ko assisté wul parce que dañ ko indi fajuñu ko le jeune Talla Kandji Kër Massar la dëkk nawetaan dafa am sant yàlla ak a jàppoo final ba jeex xale bi ñu dóor ko balu fetal ci yoon wi xale bi njabootam ne nan amul hôpitalu Pikine hôpitalu Fann ba ci principal bu mu demul ndaxte balu tànk lañ ko dóor balu tànk bu la ko dóoree ñu ne bal blanc la mais loolu warulaa faat waaye xale bi amul kër docteur bu mu demul li mu perte ci deret ak tooke bi nekkoon ci yaramam xale bi mujj faatu est-ce que dafa tax ñu dem hôpital Pikine na leen bi taalakaan yi ñëwee ndongool woo leen ko jël en charge kon docteur bi jëlul en charge taalakaan yi nan ko woo ci yoon est-ce que woon na leen ci yoon waa hôpital Fann est-ce que woon na leen waa principal est-ce que woowuñu leen pourtant bi booy bi faatoo moom Talla Kandji bàyyam nee na waa hôpital principal dañ ko doon laaj xaalis pour ñu libérer néew bi plus d'un million de francs CFA bàyyam moo wax de kooku di xale boobu jaar ci hôpital bu ne jëluñu ko amul moyen ñaata nit ñoo accidenté ci réew mi wala ay jigéen di matu wala ñeneen ak ñeneen am ay feebar amuñu ay moyens ñuy dem ci kër docteur yi ñu leen di sàggane ban ñàkk seen bakkan est-ce que dafa tax ñu woo médecin ya ne leen diw bu mu ñëwee jëloo leen ko est-ce que dafa tax ñu woo médecin yi ne diw bi muy am doom da ngeen ko xettalul moo tax faatuwul mais bu leen ñu fooyee maanaam qui peut le plus peut le bu dee ni docteur Babacar Niang dañ koy jiiñ rek ni moom dafa assisté wul xale bi dimbaliwu ko mais tey jii. nan fexe ba képp koo xam ne ci Sénégal mus nga am la te ak waa kër docteur nga génn wax ñaata yoon ba ci man mi je l'ai vécu kër Kër Massar ak keneen ak keneen toog di wax sa bopp dafa yombul yóbbu sa doom ñun la duñ ko laal lu ne mën ci am yóbbu sa papa yóbbu sa keneen ak keneen ci dëkk bi lan dëkk kon docteur Babacar Niang nan ko bàyyi léegi nag li yéeme mooy jamono ji ñuy def enquête di wax ci. nervi boo xam ne Bamba Fall nee na du nervi ak lu mën a xew mais ñaata responsable APR lañ fi dégg balaa manifestation yi di am ñu ne dañuy def brigade de riposte ut seeni i nervi ñoom tamit def garsa garsa ku dal seen kaw ñu dal sa kaw te dañ ne la violence légitime et légale takk der yi rek ñoo ko war a am nit sañul fajal fajal boppam ci réew mi kon tey jii bu ñuy topp ay nit yoo xam ne danoo duma ak nervi mais ñi yebal ay nervi jox leen ay kara tak jox leen ay paaka jox leen ay jaasi jox leen ay kuur ñu rax takk der yi du duma nit ñi ñooñu ñu wax ci ñoom ñi commandité lool jël ay énergie ngemb leen waay waay fépp fu ñu jàppee booy Ousmane Sonko yi war nañu rëbb nervi jàpp leen mais te ñi yebal nervi yi ngemb leen jox leen ay ngànnaay fay leen xaalis mais ñooñu bu ñu amee justice bu maandu mais war na mën a def enquête ba enquête bu yegg mu leeral ñu nervis yooyu ku leen yónni ak lu tax ñu yónni leen mais léegi dañuy xool médecin bi bokk ci Ousmane Sonko chauffeur bi bokk ci Ousmane Sonko journaliste bi bokk ci Ousmane ko te yenn saa ñu ñu bokkale nit ci Ousmane Sonko te wallaay bokk ci ndaxte situation bi son ko nekk bu ci Macky sàll nekkoon ñu défendre ko billaahi bu doon ni Macky Sall la ñuy teg injustice ci réew mi di ko jaay doole am ñu jug na déedéet parce que nag Macky Sall avant 2012 am na lu fi dund mais nit ñi dañ koo taxawu daf ci am ay doomu Sénégal yoo xam ne amuñu njëkk kenn mun leen jëlu du Ousmane Sonko du Macky Sall ñooñu xam lu ñu gëm démocratie ak liberté mais aussi maandu mais aussi xeex injustice ak impunité réew moo leen gënal Macky Sall réew moo leen gënal Ousmane Sonko mais ñoom danoo jàpp ni képp ku dul marron beige. képp ku farul ak Macky Sall képp ku waxul TER bi baax na képp ku waxul BRT baax na képp ku waxul Macky Sall euh, euh, Marème chéri euh, chéri Macky yow baaxoo pourtant li ñuy jiñ gars yi Ousmane di leen jàpp ñi ci APR am na ci ñoo xam ne moom lañuy doxee di ko wax kon nan delloo si waat xel yi ak xalaat yi léegi nag lii lépp bu amee ba ñuy jàpp ay xale di leen fitnaal ak di leen duma ndeysaan Sénégal moom neex pour Mame Mbaye Niang dañ ne pour deru Mame Mbaye pour honneur Mame Mbaye maanaam pour l'honneur de Mame Mbaye moo tax danoo war a atte Ousmane Sonko gars yi nan bàyyi caaxaan bu dee honneur Mame Mbaye Niang kese moo tax pour man li xew jarul ay ndaw di dee ca Bignona na Mame Mbaye Niang jaru ko bu dee honneur Mame Mbaye moo war a tax réew mi tàkk jaru ko bu honneur man lay ñaa moo war a tax justice bi nit ñi xeeb mais jaru ko bu dee honneur Mame moo war a tax ñu jëpp takk der yi jaru ko bu dee honneur Mame Mbaye moo war a tax réew mi xaaj ñaar jaru ko bu dee honneur Mame Mbaye moo war a tax ñu jàpp ab médecin ba ordre des médecins du Sénégal wala waa SAMES taxaw ni dañuy dem ci grève loolu est-ce que honneur Mame jar na ko ñu waxante dëgg maanaam Mame Mbaye même bu ko Sonko tooñoon li ko Sonko wax du dëgg Sonko teg ko li mu ko teg mais li mu jural réew mi yépp ci weer wi depuis le 2 février ba tey jii mais honneur Mame jarul lii honneur Mame tax na élèves yi ñu ngi grève tey am na ay élèves yu ñu jàpp est que jar na ko avenir école Sénégal pour rek sauvegarder honneur ki di Mame Mbaye Niang enseignement bi ay enseignants ñi ngi ci kaso bi pour rek parce que danoo war a sàmm honneur Mame Mbaye école bi de ñu ne pour honneur Mame ñii di waa impôt et domaine syndicalistes yi ñi ngi dànkaafu ne bu ja bàyyiwul wàllu juf bu jaan mën nañ dem ba dugg ci ñaxtu honneur Mame war na tax école bi tëj damay laajte est-ce que honneur Mame war na tax euh, kër docteur yi doxatul pour honneur Mame Mbaye Niang est-ce que war na tax ñetti xale faatu ci ay manifestations pour honneur Mame Mbaye Niang ce que war na tax réew mi taxaw pour honneur Mame Mbaye Niang est-ce que war na tax dem ak dikk bi bu dee bu ndeewoo Sonko du dem man de bu mu doon Mame Mbaye Niang ah dinaa ne ko man dinaa ne sama bopp man est-ce que lii lépp man jar naa ko pour setal sama bopp rek la Serigne Cheikh doon wax maanaam setal sa bopp bu la taxee di tuumal say mbokk jaratu ko maanaam bëgg a set yow dong bu la taxee rek di tuumaal say mbokk wala ngay tasum mbokk jaru ko même bu dee nii dal la ton kon honneur Mame Mbaye pour seetal ko rek war a àtte ko rek jaru ko wala Mame Mbaye dafa doon ab prince wala mu doon ab plan B bu ñu yëgul ah man de mosuma gëm ni mag Mame Mbaye jaral na lii justice Sénégal dama mosuma gëm ni kat Mame Mbaye jaral na li takku deru senegal Mame Mbaye Niang Mame Mbaye min fi dem ci élection locale Mame Mbaye jël ndaare jëmmi Mame Mbaye Niang rek war na tax lii lépp waa APR yi wax tey ji ba Mame Mbaye Niang nekk candidat lu tax woteelul ko man gëw ma ni honneur Mame jar na li te Mame Mbaye gëm naa ni xanaa bañul Sénégal bañ gu tax honneuram tax Sénégal mën a egg fu kenn bëggul mën a tax waa bitim réew jéppinu ñu doon laa risée du monde pour honneur Mame Mbaye ñu jàpp ay journaliste est-ce que jar na ko pour honneur Mame Mbaye Niang ñu ne parti Pastef mën nañ ko tas pour honneur Mame Mbaye Niang ñu dem barricade kër Ousmane Sonko pour honneur Mame Mbaye ñu ne pompe nañ Ousmane Sonko pour honneur diw diw diw maanaam li ci xew yëpp rek ñu ne procès en diffamation la Mame Mbaye moo war a setal deram waa naxte Sonko da kaa tuumal est-ce que jar na lii lépp nag ñu wante dëgg est-ce que jar na ko bu dee rek Sénégal lañ bëgg Mame na ko Sénégal gënal boppam. bëgg toroxal sonk jar na lii lépp pour man loolu ñuy wax yëpp naan pour honneur Mame la parce que Mame démb jaralu leen woon lii ñoom waa APR yi tey mu bëgg leen a jaral lii Mame Mbaye da lay nax de waa APR yi yoon wi la yoon li naan yoon yoon wi nga jël baaxul ku la ko digal dalay nax da lay nax da bëgg def yatu xeexukaay mais da la bëgg bu de bu mun na am ñu def la nagu sarax bi ndaxte am na fi ay jamono bari na ci ñoom ñoo xam ne ak yow jaarawun ak taal. te tey ji balaa nga ko doon xam li nga dugg boo demoon ba nekk ci ci gutta da ngay wéet loolu kon teyal booy bëgg bëggal nànk booy bañ bañal nànk mais aussi loolu laay digal président Macky Sall mooy yoon yoon wi nga jël baaxul ku la ko digal dalay nax bari na ci ñoo xam ne da lay topp rek di wax ak ni ngat-ngati mais tey ji bu demoon ba ngemb weng bu demoon ba nga nekk doo au mur ci ngay xam ñooñoo ñan ñooñoo ñan kon honneur Mame jarul li fi xew lépp ci réew mi wala Mame doon ab prince bu yëgul man Mame Mbaye Niang mosuma gëm ni am na doole ji léegi nag pour man du honneur Mame Mbaye moo leen ñor mooy conséquence politique yi am ci àtte Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko parce que bu demee nag ba ab njiitu réew le président de la république dem ci ab yéenekaayu tubaab yi naan Sénégal bu nekkuloon ab démocratie authentique neneen lay demee ci Sonko Sonko mi ñu dàq impôt et domaine teekaat doon candidat ci élection législative Sonko mi ñu jiñ viol Sonko mii ñu ñu ne dañ kaa Sonko mi ñu ne dañ kaa duma Sonko mi ñu ne lii ak lii <coughs> yooyu yëpp mu doon loo xam ne tey ji Ousmane Sonko dund na ko ci réew mi jiñ ko viol jiñ ko rebelle jiñ ko terroriste maanaam dem ba ndeyam ji ko jur muccul ci fitnaam waaye njabootam muccuñu ci firnaay waa kër ñàkk jàmm njabootam muccuñu ci dara jamono yi Ousmane Sonko bokk ak moom risque la waaye ten ak moom risque la waaye ten moom ca publier ko risque la waaye tamit doon koo xam ne da ngay dem ci ab émission sax di waxal Ousmane Sonko wala nga koy défendre risque la loolu lépp pour honneur Mame kon Mame Mbaye man dama jàpp ni gars yi dañ koy mbubboo ndaxte bu doon pour honoram kese lii lépp du fi am waaye nag gëm naa ni ay mbokkam aussi tamit xam ne ay ndijaayam daal buñ ko jegoon bëgg naa ñu wax ak moom parce que ndijaay mooy nijaay yaay da réew am fa ndijaay baax na doo déggee ñu naan eh, diw di amu fi ndijaay loolu waxi wolof yi la woon waaye wax ju am solo la parce que am yoo xam ne boo ci naree dugg da woo ci ruq mën a kan la waaye diw lii génn ci lii xajoo ci parce que nag sa jëmm ji moo ëpp lii yooyu il faut que ñu ci bàyyi xel bàyyi xel bu baax a baax mais aussi tamit am taxawaay parce que am na ci ñoo xam ne tër leen yomb na waaye rendi leen moo jafe te Ousmane Sonko dafa mel na ñu ku bokk ci ñooñu maanaam tëb bu mu tëb beneen tëbin dese na ko ndax ban ko de dalee rëbëg tey jii fu ne jaar nañ fa ak moom le 30 doon bis boo xam ne man dama jàpp lu waroon fomm la ndaxte bu dee ni rek dal na koor yërmande ak a jàmm ak salaam lu waroon a fomm la mais duñ ko def duñ ko def parce que jamono ji ñenn ñi dox jàmm am na ñoo xam ñi nga xamu taal bi boo déggee ñu ni la waa Benno Bokk Yaakaar daje nañ bis bi waa Yewwi di daje. ñu ne <laughs> non réew bi moo neex ñu ne non dañuy porter plainte Ousmane Sonko parce que ñi ñàkk seen bakkan moom ñu jiiñ ku ko daal mais loolu jarul porte plainte li mu jaral waa yoon ba ñuy rëbb xale yi diffusion de fausses nouvelle quatre cent ci ay ndaw nekk ci kaso bi ñu leen jàpp ak di tëj bi mujj ci Thiès rek xoolal rek booy Pastef yi ñu jàppoon am na ci ñoo xam ne mujj na leen bàyyi su contrôle judiciaire nga dégg Mamadou mu ne nga dégg Mamadou Lamine Massaly mu ne këram la ñu lakk mais booy yi bi ñu demee ci kanamu yoon naka ne booy yi jamono bi Massaly naan danoo lakk këram booy yooyu mi ngi ñi ngi ci loxoy takk der yi yow nan ngay nekkee ci commissariat di di lakk këru jàmbur. pour wax la ni manipulation bi ak li jëm ci tuumaal gi ñuy tuumaal yenn jeunes yu passé fii bari na ci ñoo xam ne wallahi azim da leen jiiñ mais li leen jiiñ defuñu ko tey jii ñooñu di wax naan dañuy topp Ousmane ko pour mbiri ay jeunes yi faatu mais quatorze jeunes yi faatu woon mars deux mille vingt et un loolu du nga ko lijjanti mais bu dee procureur ak ba takk der yi bu dee ñiy def enquête bëgg ñu liggéey nañ liggéey ci loolu jamono. bi quatorze jeunes di faatu ñetti di faatu le ministre de l'intérieur ndeysaan wala de l'inférieur dem dem seeti ab xale boo xam ne nee nañ ay portable lañ ko sàcc danoo yàq bagaasam waaw lu jara rafet lu de parce que mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk may ñaata nit noo yàqule fii Sénégal ministre boobu le dem na day masawu parce que ab doomu Sénégal liggéeykat boo xam ne jàmbaar la moom lañ yàq alalam dafa delloo jàppale dafa jar a moom bi muy doog a falu di nekk ministre de l'intérieur jamono jooju la 400 ci ay ndawu Sénégal mbëkk gaal loo tey ñu ne danoo des ci géej gi le gouvernement face à la presse daje ñu laaj le ministre de l'intérieur ci kanamu journaliste yi ci doomu Sénégal yi dee ci géej gi toll ci 450 loo ci xam. mu ne jeune ne pas venu pour compter des morts ministre de l'intérieur bi gëm naa ni est-ce que boobu du sorteem bu njëkk nagam ab quatre cent jeunes Sénégal ñoo des ci géej gi nga mën ko oyofal à ce kon kooku tey jii boo ñëwee duñu ñu gëmloo nii da ngaa am yërmande boo ñëwee du ñu gëmloo ni jeune Sénégal da laa ñor ñun du la gëm jamono ji quatorze jeunes di faatu lijjanti woo leen ñetti di faatu kan faatu bi ñoo naan leen. nga ñëw duñ gëmal loolu du la gëm parce que nawetu daaw bi nag fi la ñu fekk néeg yi seen nag yëpp xam nañ ko kon foofu la ñuy tëjee nanu bàyyi tapale bi mais aussi bàyyi triant bi mais aussi tamit jël réew mi teg ko ci yoon ak dëgg ñi ñu téye ci kaso bi ñi ci deful dara ñu bàyyi leen parce que lii di solution du pexe parce que xale yi bu ñu miinee kaso duñ ko faaleeti te wala fi dem na loo miin yàpp ko kon mbokk yi di jégalu ñëpp. di ñaanal ñëpp jàmm mais aussi di am mbégte ci teewaay bi gërëm El moo du topp Ablaye ak euh, groupe solution yëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm di leen wax ni di leen gën a abonné di gën di partage mais aussi di ñu gën di seetaan à vos commentaires merci beaucoup.